السلام عليكم بوكي السلام عليكم كي نسال ما يوم كي نسال ويجن سي كاسو بي يا غتود كي نسال ني ان شاء الله ربي دنا جن بلا ياك دنا جن بلا ياك ان شاء الله ay ceeɓu gelle riir mimay seen moy wuti ko de riir mima seen ni mo ànd ak moom dafa ndaak mbégte dina am de mbégte dina am mbégte bu bànneex dana am de insha allah rek ceeb ñu ko génne bëccëg noonu de duñ def loolu yaakaaruma ko yaakaaruma ñu génn ko bëccëg waaye yëfi jigéen la de yëfi jigéen la sareetul jigéen yi bànneex tey yal na ko waaye dana génn de incha allah rabbi dana génn balaa yàgg kii ah ceeb bi nga ko a am ba kii daal moom mbir la de kii la kii borom mbooloo la de kii daal def naa mun a gaay doon wër kii ah solution dana de solution dana am incha allah rabbi man yaakaar naa ne mu neex de léegi mu neex léegi rek